ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur euh, ak seen euh, sant euh, ñun délégation bu Y'en a ak bu FRAPP ñoo ñëwoon fii ci siège PDS ngir dajeek la grande coalition wàllu ginnaaw bi nga xam ne démb daje nañ ak la plateforme jàmmi réew mi barki démb daje nañ ak la coalition Yewwi askan wi mu am ay ndaje yu bëri yi nga xam ne dinañ ko amal ci réew mi ngir euh, daje ak képp kuy doomu Sénégal euh, ngir waxtaanee euh, nekkinu askanu Sénégal rawatina ci wàllu yoon ndaxte li ñu ràññee mooy yoon dafa jëng bu baax a baax ci Sénégal ndaxte yoon ci Sénégal ci nji njiitu président Macky Sall li ko màndargaal mooy yoon boo xam ne day làkk doom dóor doom làkk ay doomam moom président Macky Sall doomam yi nga xam ne ñooy luubal alalu Sénégal doomam yi nga xam ne euh, ñoom ñoo euh, ñoom ñoo càpp ci mooy trafic euh, de faux wala trafic de passeport diplomatique waaye bu fekkee maanaam suñu mbokk kilifa wala suñu mbokk Karim Meïssa Wade mbaa Khalifa Ababacar Sall ak ñoom seen waaw yoon dal seen kaw donte lenn rek la ñu wax président Macky Sall Euh, sa bët takk na suuf ñu jàpp nag ne yoon warul nekk Sénégal ngànnaay boo xam ne président de la république da koy jëfandikoo ngir moom ay njubluwaayam ngir moom ay mëbëtam ngir faagaagal képp ki nga xam ne lenn rek nga fi def mooy euh, euh, fexe ba réew mi ñoŋ fexe ba réew mi jaar ci yoon ngir fe maanaam euh, loo xam ne leen rek nga def mooy duut baaraam li nga xam ne moom moo doxul ci Sénégal yoon warul nekk ngànnaay boo xam ne yow say doom yow ñi bokk APR yow ñi bokk Benno Bokk Yaakaar ñi nga xam ne ñooy say ministre wala député euh, bu ñu jàddee yoon euh, bu ñu jalgatee yoon yoon du leen wax dara yoon du leen yóbbu feneen waaye itam bépp sénégalais te bëri nañ yoo xam ne tey jii nii ñu ngi kaso ñaari at ñeenti at ñetti at kenn àttewu leen kenn dégluwu leen ba kañ suñu mbokk Sénégal yi nga xam ne ñu ngi ci kaso yi waroon am liberté provisoire waroon am contrôle judiciaire mënuñu ko am ndaxte bokkuñu APR mënuñu ko am ndax bokkuñu Benno Bokk Yaakaar wala euh, duñu mbokk Marème fay Sall ñu jàpp nag ne yoon boobu du yoon bu ñu bëgg du yoon bu ñu naw du yoon bu ñu tax a jóg du yoon bi nga xam ne moo taxoon ñu taxawal M23 du yoon bi nga xam ne moo taxoon suñu papa yi suñu maam yi di xeex ngir Sénégal boo xam ne li ko tax a jóg mooy un peuple un but une fois bi ñuy sanc Sénégal li ko taxoon jóg mooy un peuple but une fois président Macky Sall nag ak nu muy doxalee justice bi deux peuples moo fi am deux buts moo fi am deux fois moo fi am benn justice boo xam ne pour moom ak ñi mu àndal la beneen justice boo xam ne pour képp ki nga xam ne activiste nga opposant nga wala askan nga ngay ñawlu sàcc suuf bu ñuy sàcc sa gox ngay ñaawlu euh, ni nga xam ne noonu lay doxalee ak alalu doomu maanaam senegal ñu ñëwoon nag euh, wax leen ne euh, dañoo bëgg a taxawal euh, loo xam ne ñun ñëpp dañuy gëstu ci lan mooy jàngoro bi nga xam ne moom moo dal yoonu Sénégal jàngoro boobu lan la waaye jógee euh, bu 4 heures jotee jógee. paire yi nga xam ne. diplomatique suñu mbokk mbir mi nee na ba kenn dootu ko jeex ndekete kilifa moom lañu ñu soxla woon ñett yi nga xam ne ñoom ñett. ñoom ñoo laale woon ci dossier bi nekkoon kaso bàyyi nañ si ñaar moom rek ñu téye ko foofu loolu day leer nañ day day fësal ne day firndel ne président Macky Sall kilifa la xiifoon président Macky Sall kilifa la bëggoon dóor président Macky Sall kilifa d'accord la mere woon waaye suñu gis-gis mooy président Macky Sall bu fekkee li ko kilifa wax ne saay-saay la moo ko métti bu bu bu bëggee teggi tuuma justice bi na ko doxalee neneen waaye bu dee justice bi nii la koy doxalee kilifa kon li ma waxoon dëgg la président Macky Sall saay-saay la saay-saay boo xam ne day foowee suñu yoon saay-saay boo xam ne day jëfandikoo suñu yoon ngir président Khalifa Sall ca kaso Karim wàdd ca kaso ku la neexul ca kaso sa bët takk na suuf ca kaso bàyyil sàcc bi ca kaso donc boo buggee teggi tuuma bi nga xam ne kilifa moom la waxoon ne président Macky Sall saay-saay la ah du nii la koy doxalee waaw am na fukki bërëb ak ñett ci Sénégal yu ci mel ni Ziguinchor Bignona Kédougou Koungheul bambay Ndar ak feneen ak feneen Thiès Dakar euh, Kolda ak ñoom seen Tivaouane yoo xam ne suñu ay mbokk Y'en a marre suñu ay mbokk FRAPP déposé nañ ci table préfet euh, ak ak ci jaspora ci diaspora bi euh, maanaam tugal déposé nañ ci table préfet ay këyit yuy xamal préfet yi ne ajjuma ci ngoon dañoo bëgg a amal doxu ñaxtu si jàmm ak salaam xeexuñu xulloowuñu doxu ñaxtu si jàmm ak salaam moo ñu tax a jóg benn yuuxu rek yoon dafa jéng du dëgg du yoon yoon dafa jéng ñoo lànk ñoo bañ donc déposé nañ foofu yépp euh, préfet bu mel ni préfet bu Koungheul euh, tontu na suñu ay mbokk euh, Y'en ak FRAPP yi nekk Koungheul wax na leen ne autorisé na manifestation bi lu ñuy sàkku ci yeneen fukki préfet ak ak ñett yi mooy ñu topp ci tànku préfet bu Koungheul bi nga xam ne am na taxawaay euh, bu répu bu républicain am na taxawaay yu njaaxaanaay boo xam ne du rek manifestation waa nguur gi lay autorisé waaye itam euh, ñeneen ñi nga xam ne d'accord ñu ak président Macky sàll bu ñu soxlawee marche ni ko suñu constitution waxee dina leen autorisé donc am nañ yaakaar ne bu dee jàmm lañu bëgg te ay bés yii passé weer yii passé ñu bëri ñu ngi dox tànk jàmm jàmm nag mënul am te yoon amul yoon nag bokk na ci ay citoyens sénégalais am lu leen naqari ci seen yoon bëgg a yoonal yoon nga may leen ñu dox doxu ñaxtu voilà. waaw euh, ajjuma benn jéego dong la dina amaat yeneen jéego bu ajjuma passé dina amaat yeneen ak yeneen manifestation manifestation ajjuma bi fukki bërëb ak ñett ci Sénégal ñoo nar a amal doxu ñaxtu waaye namm nañ ba jëmmi jamono boo xam ne egg si jëmmi jamono joo xam ne euh, ñeent fukk ak juróom euh, ñeent fukk ak juróom benn département yi nekk ci Sénégal bu ci nekk ci même waxtu bi ci même bés bi dina am manifestation ngir yuuxu yoon dafa jéng waaye bu weesoo manifestation yi euh, ñu ngi xalaat ñu ngi waxtaan ñu ngi soo suñu biir ngir xool naka la ñuy amalee ay lël ndax assise de la justice lañ ko nar woowee ndax état générau de la justice lañ ko woowee ay lël yoo xam ne ñun askanu Sénégal dinañ toog seetlu dinañ toog xayma dinañ toog seet setantal yoon bi yoon Sénégal nu muy doxee lan moo tax mu am xar kanam bu ñaaw bii lan moo tax mu am mais xar kanamu kumba am ndey ak kumba amul ndey bii waaye itam xool saafara yi nga xam ne euh, suñu suñu pàpp yi suñu maam yi ak suñu yaay yi defoon nañ ko ci lii saafara jàngoro yoon dinañ dinañ ko génnewaat dinañ si waxtaanaat ngir fexe ba am loo xam ne xëy na buñ ko defee buñ ko jaaralee foofu euh, yàlla bu ñu jàppalee yoon Sénégal dinañ ko yoonal jërë ngeen jëf. waaw euh, waa wàllu euh, ginnaaw bi ñu rafetloo suñu ñëw ginnaaw bi nga xam ne itam wan nañu ne d'accord nañu ak ñun ci seetlu bi nga xam ne moom la ñu seetlu ci réew mi nu muy doxee rawatina ci wàllu yoon gannaaw bi nga xam ne ñoom sax nee nañ ñu ñenn ci ñoom dund nañ ay métit te yoon moo leen ko teg yoon bi nga xam ne président Macky Sall moo koy manipuler moo koy instrumentaliser nee nañ ñu euh, bokk nañ gis-gis nee nañ ñu bokk nañ maanaam tawat bi naxar bi ak métit bi léegi nag ñoom ay ndaw ñoo leen yebaloon dinañ Euh, di maanaam dinañ xamal seeni ndaw li nga xam ne ñun moo nekkoon suñuy tànk benn euh, ñaareel bi mooy euh, ñi bokk wàllu ku ci nekk ci ñoom itam mën na gëstu mbir mi xool mbir mi ba nga xam ne même soit wàllu dina ñëw wala wàllu dina ñëw waaye itam ay mbootaay ci biir wàllu wala wallu bu ñëwul ay mbootaay ci biir wàllu ay parti ci biir wàllu dina ñëw xëy na ak ñun bokk bokk li nga xam ne moom mooy xeex bi